asalaamaaleykum man la lay Gueye bu sëñ Mansour si borom daara ji xalif général de Tidiane Tivaouane yal na yàlla may ko ay leer ci àjjanay firdawsi ak mboolem jullit di en même temps kenn ci xalifa Ababacar si Sall le président xalifa le grand maire de Dakar euh, di en même temps conseil municipal ci mairie commune jëppal Derklé maa fas yéene def échange bu gàtt rek ak waa Dakar midi pour ci loo xamante ne askan wi buñ ko déggee mën a am ay jàngat yu ñu ci def. jàngat bi ñu kii euh, bu la bëggoon posé nag en tant que casquette politique lañ la bëgg a laaj euh, dañ la bëggoon laaj rek euh, ban jàngat nga def ci discours président de la mu def ci 31 décembre ak jano bu mu def après ak taskati xibaar yi. waaw xam nga discours président boo dee xool lu bees amu ci man suma ci man su man président bu ngeen bu ngeen bu ngeen di xool amul dara loo xamante ni. tey indil nañ ko lu bees ci discours am mën nga jël na nga ni xëy na li nga xamante ni wax na ko te kuy sénégalais boo ko déggee da nga ko rafetlu mooy njaal mi mu def ci xale yi dee ci géej gi waaw loolu lu rafet la loolu lu baax la ba mu amee sax man am na déclaration boo xam ne def naa ko place de la nation ak presse ba fa nekk yëpp keroog journaliste yëpp ñu ngi ma war wax ma ni jaadu woon na sax ñu wàccee drapeau bi ñetti fan parce que li dee ci géej gi bu doon tubaab yi la wala yi bu doon ñaari nit la sax ñu def ko waaye ñun xoolal li dee ni mu toll ba président bis su discours bi mu ciy doog a def njàll kenn du ko ñaalu nag danañ ko rafetlu waaye waroon nañ koo def ca ba nga xamante ni mbir mi amoon na waaw waaye ba léegi tamit ñu rafetlu kàddu njaal moom bu weesoo loolu président amul dara loo xamante ni indil nañu ko ci lu bees président fi mu ñu dama bëgg sénégalais yi xam ko amul dara lu may wax ci yéen journalistes yi ngeen timma te bu ngeen demee ci samay archives du ngeen ko fa fekk tey jii may wax ak yéen na ngeen takk lii ma leen di wax lim ñuy indil programme la bu discours bi dama bëgg ngi ngeen jàng ko décortiquer ko programme la boo xam lim ñuy indil moom deful sax bilan pour li passé mais daf ñuy indil projet pour fi ñu jëm ci kanam te xam nga projet pour lan la projet Macky Sall fii ba deux mille vingt quatre après deux mille vingt quatre la dama bëgg gars yi décortiquer discours bi. li nga xamante ni waxoon naa ko nag yenn sénégalais yi di ko laam-laami ñi naan sañu koog ñi naan xalaatu koog ñi naan nangam dama leen di wax fii xoolal tele bi nga xamante ne télé askan yi la junj day na boroom xel nang tele askan bi la ñëpp ñoo ko bokk dañ fa am ay xarit am ñu fa xam journaliste yi am na ñoo xam ne jox nañ leen programme pour ñu commencer liggéey ci deux mille vingt quatre Macky il sera candidat programme boobu la teg man waxuma ko làmbatuuma ko. damay wax loo xamante dama bëgg lu ma wax rek après ngeen dem vérifier ni Ablaye waxoon na nangam xëy na ñoom Alassane Ouattara dañoo njëkka def élection ak ñoom Alpha konde mais moom bu leen njëkkoon a def lee ñu def moo leen cay jiitu mais programme la boo xamante ne xoolal teg nañ ko ci taabal ji ay sañ na ko sañ ko bàyyi leen di wax loolu moo tax ni ngeen xool nee naa la deful bilan tegaluñu bilan daf ñoo indil programme yi nga xamante ne day de fii ba deux mille vingt quatre ak après deux mille leen élection. élection su ngeen ko gisee deux mille vingt quatre mi na leen bett xam nga tax mu leen di bett Dakar midi teel leen li ma leen di wax ak askan wi gis ngeen nii mu poussé élection locale yi buñ demee ba ci kanam mu poussaat législative yi mais calendrier bi dafay faussé présidentielle bi bu ko poussé mais ba léegi mooy président moo fi nekk deux mille vingt quatre dafay passé day dugg ci biir day dugg day dugg ci biir beneen mandat day dugg ci biir beneen mandat moo tax conseil yi nga mairie yi man xëy na ku nekk ak sa man maa ngi ci yi man bu ma sañoon man maire yëpp ñoom ñëpp laax kooku sama gis-gis la man bu ma sañoon maire yëpp dañuy démissionné ah ni suñu mandat jeex na neneen lu ñu mën a xalaat def ko askan wi di dégg nekk ay témoins gisa bu ëllëgee ñoom li ñu teg jàppaat leen ko fii ñoom ñëpp daan wax ni yéen maire yi bàyyi nañ leen fi deux ans wala un an nangam amul benn maire bu wax man fi ñu toll dama bëggoon démissionné sax conseil municipal bi ma nekk mais fi ñu toll dafa am ay investigation yoo xam ne maa ngi koy def te su ma démissionné ci poste conseil municipal bi moment bi du ma mën a def yooyu investigation mais su ma sañoon maire yi nga xamante ni ñoom ñëpp bu ko waa maire euh, ñoom ñoom waa nguur gi bu ñu ko nangulee maire opposition bi ñoom li leen waroon ñoom fi ñu toll ñoom seen bopp ñoom ñu taxaw démissionné dal di tekki seen seen ndomba tànk parce que bu ëllëgee Macky Sall dana pousse affaire bi élection du am deux mille vingt quatre ñu ni yéen maire yi defaloon nañ leen ko lii ak lii ak lii moo tax te su boobaa naka ngeen di di ko weddi nu ngeen koy défendre rek ah. te foofu la ñuy yóbbu du organiser élection présidentielle 2024 dafay dugg ci biir programme bi nga xamante ni mooy programme mu euh, daf koy yóbbu at 2026 wala 2025 wala 2027. bu mooy 35 bi rek. mooy 35 mu nekk ci beneen mandat.